suñuy jaar jaar daal moo ciy mag ànd ak xale yëpp indi leen ci man ajuram moo njëkk def loolu tere googu ak pas-pas boobu ak hitt boobu nag Seydina Ali mi ak i njobootam yëpp tënku yàlla def leen ñu naan maari maarifatu billah loolu mooy fondement bi Seydina naa mii nag toog liggéeyam bu rafet bii liggéeyam bu sell bii mu def ànd koog ay gor ay nawleem ay taalibeem ay mbokki dëkkandoom ay mbokki cheexam mu liggéey liggéey bu rafet bi ngir jëmi yàlla ñun nag dañuy ñëw pour témoigner si ko gannaaw bu ñu ndokkalee suñu xalifa na Alioune mi nga xam ne tey moo fi toogal Cheikh Moussa si Ndiamé borom daaru eh, na dañuy ñëw pour sedd la ci say biir bokk pays bi li oustaz wax la seet naa kat lu ñuy ut ci àdduna mooy ngërmaande yàlla ngërmaande yàlla googu am na ko jële ko ci ñun la woykat ba wax ku laal bamba baax ku laal ka laal bamba baax njàmme nag moo laal bamba Souleymane moo laal njàmme seet naa leen laal sang ñaan yaa xewle comme yaa xewle nag lépp dañ koy tenk ci yow Cheikh Moussa su jëmoon ci béréb ca kam jëm ca moom waxam yépp ci la koy tënk su ngeen dégloo band yépp noonu la ko defee te yow yaa xew la kon nag loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy seedeel mbooloo mi yépp te nit loolu lay ut ci àdduna ngërmande yàlla rek a nit di ut ci àdduna ngërmande yàlla rek ñaar rek moo koy may nit ñàqal la wala ñuqil la waaye nag dafay am lu jiitu lañ lañ la defal ba ngay jëfal kooku lañ lañ la jëfal ba ngay ñàkkal kooku ku la jox yàlla mën a toog ko fay àdduna ak àllaaxira te ñun Cheikh Moussa siise yàlla la jox Sëriñ Tubaa ko jox yàlla moom i tamit mu jël yàlla jox ñu ko mayuñu ci ndigal ñu dimbali ci jëmm ji oote bés bii ak ñu bari waaye tey moom moo oot moo aaye na ñëpp xam loolu ci moom ne am na ngërmande yàlla ci loo xam ne amul wérante ngërmande yàlla nag jamono bu nekk waxtu bu nekk da koy gën a beesal da ko gën a wéral fekk sa bakkan jeexut da koy gën a wéral rek da ko gën a saxal alhamdulilah su ngeen gisee booba bu tey wàccuñ Cheikh Moussa lañ gisoon ci dundam wàccut benn yoon dem na bu yor bant di sukkandiku ci bant bi te continuer kalimatu laa ilaaha illallaah pour jottali ko bindee fi yéen ay bokkam yéen ay dëkkandoom ñi nga xam ne naan nañ ak ñi nga xam ne naanaguñ ñi naan gën leen wéral lim leen jox moom de caaxaanut ñi naanagut te nekk ay dëkkandoom nañ lagg si xam ne dañuy ñëw pour seede ko gis nga lii mu oote Cheikh Ahmadou bàmb moo ko jox Cheikh Moussa siise ci ñetti fan ci koor la gisee sëriñ tubaa sëriñ tubaa àggali ko ci yàlla mu ne jàpp naa ci mbintim sëñ Touba boo àgg ci yàlla ci mën ci àggali jaam sëñ Touba moo ko ko jox ci guddi waajuram moo njëkk a dem jébbalu ci sëriñ tubaa ñu yëkkati ko jox ko Cheikh Ahmadou Fadiama Niang sëñ Touba jox ko Cheikh Ahmadou Fadiama Niang ne ko ak mbuus laa la jox taggatal na ko li ci mat a def man maa ko ciy def nee na ñetti at lafa def Cheikh Amadou Fa Jama Ñang jël ko delloo ko sëñ Tuubaa ko mbuus mi nga ma waxoon def naa ko wulli naa ko ba mokk liñ ciy def mbàkk yow yaa ko ciy def Cheikh Amadou Fa Jama Ñang moomu moo dimbale waajuru Cheikh Moussa ñëwaat encore jàppaat Cheikh ci loxo addiya buñ ko jox addiya googu daf koy jël teg ko ci loxo Cheikh Moussa Cissé ma indi leen taarix bi gën a wér nag ci taarix yi taariix bi gën a wér ci taarix yi ku déggee neneen lu dul nii ma wax wax bu ñu yokk la nit yàlla nag suñ ko yokkalee te wax ba rafet na baax na waaye li gën a wér mooy li ma leen di wax si nii bala may dugg ci xam-xam bi taarix googu moom laa leen njëkk a wax taarix yi siiw na lool bari na lool ma déglu ci lu bari waaye wérut kiy wax ak yéen nag juróom ñaari attu yàlla def naa ko ak musa Moussa ñetti weer laa tukki Abidjan ñett ñaari weer Abidjan juróom ñaari at bor bu yàlla sakk dinaa ko gis teg ko bët bor bu yàlla sakk laa wax dinaa ko teg bët toog ak moom ni Abu Hurayrata mel ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu laa mel ci Cheikh Moussa ñuy tukki nañ am ñaari at ñuy tukki nañ am ñetti at ñuy tukki nañ am lu bari mosuma koo def ñaari weer la ma benn waaye nax yóbbu ma Abidjan ñaari weer maqaama Cheikh Moussa si delloo si ma mu ne Cheikh Moussa Souleymane dem mbay mbudaay Souleymane dem mbay mbudaay xanaa xamut ne mbudaay bu tojee lageem toj su lageem tojee adduna bi yëpp toj mbudaay jàppal ma mbudaay walli wii dañuy def listixaar suñuy oote ci seen biir oote ñu ne dëkk ngi ci Saalum ci Sénégal ci Saalum képp ku ko gañe sa oote mooy gën a koowe sa oote mooy gën a koowe ci àdduna bi Seet Matiba def na listixaaram ñëw ma pour toj ko mboojeen tefes bii nga gis ci gannaaw. diggante Mbuur ak Juwaalo. diggante Mbuur ak Juwaalo waa Mbudaay la seet mati moo ko toj te mag ñi su buur tojoon dëkk kenn ku nekk dangay seet foo mën a dem. mboojeen googu mboojeen googu kii ay mbokkam lañ muy mboojeen tefes bii Mbudaay la jóge koo ñëw foofu seet mati ba moo ko toj Maba Jaxu Ba. def na listixaar ñu ne ko dëkk boobu ku ko toj rek sa oote mooy gën a koowe ci lislaam mu ñëw toj dëkk ba xeex ak ñoom boobu ñoom xeex la ñuy def jaaru xeex lañuy def toj dëkk ba mag ñi ñi mën a jàpp ci ci jigéen ñi mu jàppaleen yóbbu booba loolu moo fi xew boo gisoon bu daay bañoon lépp lu bokk ci wàllu lislaam xeex googu moo taxoon sexal islaam alaaji ibrahima ñas ku yàlla may la adduna bi yëpp fu nekk dem na fa yàlla may ko mu toj ko waajee na kawlax ne tey mbudaay séeréer laa jëm def lépp ñëw mbudaay góor gi makkura ma nga xam ne moo fa nekkoon mooy rawaanu dëkk bi ba mu ko déggee ca xur wala yendu ji bàyyi ñes bëgg a gisee moom yàlla attewut mu gisee moom mu delluwaat ne lii moo neexee yàlla booba lu nekk dafa am ku ko yàlla jagleel booba mu Moussa Cissé la ko yàlla jagleel tey oote bi gën a siiw ci oote yi la benn ministre waxoon oote bi gën a siiw ki gën siiw tey ci internet yàlla yàlla la askanoo ci mu Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru yàlla yàlla yit mbokk mi tudd na ko léegi dinañ ko leeral li kii oote ci seen koñ gi ci seen dëkk bi ci seen tund wi di seen alin mi du caaxaan lu kaf lu wér lu sax la lu dëggu la Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mag ñi dañu daje woon ci moom ne ko Mbàkke àgg ci yàlla ndax nit mën na koo am te jaaru ci ken Sëñ Tuubaa ne leen man de awma ko xataa moom Serigne Touba mu ne moom amu ko dafa am ko ko jàpp ci loxo bu ne ko yàllaa ngi nii moo ko woy dallani Allahu ala muhammadin wa qaadali muhammadi li samadi man yàlla moo ma tegtal yonti yàlla muhammad yonti yàlla muhammad moo ma omat bu ne ma yàllaa ngi nii seriñ tubaa ak muhammad est-ce que daba daje nañ jamono gis nga gis nga Serigne waxu Seexul Xadiim xam-xam lañ koy déggee du xam-xam nga koy déggee ki ne yàlla moo ma tegtal yonent yàlla Muhammad yonent boobu moo ma jàpp ci loxo omot ma bu ne ma yàllaa ngi nii waaw yow est-ce que ni nga dajeeg Cheikh Moussa Cissé jamono daje kook sang ñaan jamono est-ce que noonu la sëñ Tuubaa dajeeg yonent yàlla Muhammad jamono déedéet diggante Serigne Touba ak yonent yàlla Muhammad ëpp na ay junni junni junni junni at sëñ Tuubaa door a feeñ jamono waaye nag li ustaas wax léegi yonent du dee yonent xam-xam la bokkul ak jëmm ja suñu borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi waaw yonent dafa xamoon wala xamu doon koo doon préfet préfet bu toogee préfet dem préfet ñëw nuñ koy tuddee du préfet préfet su dee na préfet du préfet borom xam-xam su dënnee yonant maqaama yonant la toogee tur bi lañ soppi tuddee ko xolama waaye xam ngeen ne yonant su xamu doon nu muy ootee waaye dañ soppi tur tuddee ko boroom xam-xam xam-xam booba nag nga xam ne mooy njubab yàlla bi moom la yàlla yëkkati ci daraja yontu yàlla Muhammad teg ko ci loxo seexul seexul xaddim sëriñ tubaa moo tax nag mu ne moom mooy liggéeykatu yonent yàlla muhammad yonent bi lay liggéeyal yonent bi nag mooy mission bi yonent bi nag mooy ndigalu yàlla gi nga xam ne yàlla jox na ko yonent yàlla moom pour mu jubal nit ñi ku dajeeg sëñ Tuubaa jub kii loolu la jële ci ñun ñu jële ko ci Cheikh Moussa Cheikh Moussa jëlee ko ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jëlee ko ci yonent yàlla muhammad directement deg na ben mbok bu wax ne ben sëriñ munta yobbu nit aljanna wax bi siw lol way wax bi werut ma dem ci Maroc ci yu ay borom xam-xam ñu laaj mané dañu dégg né Sénégal dañ japp né seeni borom yi xam-xam yi ñom ñoleen di yobbu al ñom lañuy andal duggu sëriñ du yóbbu nit aljan dafa siiw du senegal rek dafa siiw ci àdduna bi yëpp tey maa ngi déglu benn band benn arab mu ne Baay Ñas dafa bokkaale yàlla parce que xamul yàlla mu ngi nii ci suma ci suma téléphone mu ngi nii ci suma téléphone waaye nag nañ leen ñu dem jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg kappit jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg kappit rek nañu leen ñu dem ñun lu ñuy wax ne wuñ ko ma ne leen yéen deen di ñu weex ngeen ngeen ne sëriñ du yóbbu nit aljanna ma ne ma ne ko ci suñ gannaaw it fa ma jóge ko it loolu moo fa siiw waaye nag man ku toog ak man loolu dootoo a gëm li ngay gëm mooy sëriñ ngay àndal bu dugg aljanna sëriñ ngay àndal bu dugg safara ñu ne ma sa dalil lañ soxla woon ma ne ko waaw loolu dafa jege gis nga alaaxira suñ defee nii ñu def nii nii ñu def nii laa wax ñun ñëpp ci bi kero ngay xam aljanna nga jëm kero ngay xam safara nga jëm yàlla nee na bés boobu moom am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent du ñu oo ci turam yi ñu toog di ma déglu rek nee na suñ waajur yi luñ foor foor foor duñu oo ci suñ turu waajur yi ma ne ko xanaa jàngu leen yow ma noddohu kullu unnaas bi imaam yi ñoom ñëpp ñu depp na aaya bi jàng nañ ko yàlla nee na yowmal qiyaam kenn ku nekk dama lay woo ci sa turu imaam imaam mooy kan ndax mooy asalaamaaleykum ci jàkka ji imaam mooy ki yar ci yàlla yóbbu la ba nga àgg ci yàlla rek ba nga xam ne kii su fekkee yàlla am na kii mooy yàlla noonu la ko borom daaru waxee loolu mooy imaam mu ne alquran ne su ma leen ooyee ci seen turu njiit njiit gi jog mu ñëwee ne yow loo ànde woon ak ñii yàllaay wax de tekki laay laaj moo la gën a xam nee na nga ne man dey ah keroog Cheikh Moussa Siggi ca kanamu Cheikhul Khadim man de kalimatu laa ilaha illallah la àndeeku yéen waa koñ gi lan ngeen dégg ci Seydina Ali Ndour laa ilaha illallah yóbbu leen ci yàlla xamal leen yàlla won leen suñ borom du lool ngeen dégg ci kàddoom mu ne laa ilaha illallahu laa àndeek ñoom yàlla ne baat boobu dey mooy man maay moom yow demal taxaw fale yéen lu ngeen àndee kii mu ne kalimatu laa ilaha illallah mu ne jël leen suma ndeyjoor suma droite soo daan wax euh, français jël leen seen téere ba su tey ànd leen ak moom moom ngeen ay àndal ba dugg aljanna kon ku wax ne sëriñ sëriñ du yóbbu nit aljanna juum nga sëriñ bi ngay àndal ba dugg aljanna su fekkee xamal na la yàlla alquran tunaat waxaat ca beneen boor ba su fekkee nag xamalu la yàlla mu ne mu ne la yow loo àndee woon ak ñi mu ne ah, ma wax dëgg man di suma maam laa fekkoon mu ànd ñoom mu ne ko ah mu ne mu ko waa baax na taxawal fa fële laaya bale moo tax ooyuma leen askan yàlla neen soxlawul askan yoomal qiyaam beneen laaya ba ñu ngi déglu de mu ne leen waaw yéen lu ngeen àndeew nag ki mu ne suñ maam yi lañ fekkoon ñu ànd ak moom mu ne jaar leen suma càmmo yi du ngeen xam dara tey ci seen téere sëriñ bi ngay ànd ak bésu kera moo tax ngay ñëw poñe sëriñ bi sëriñ bi poñe la mu nekk coow loo xam ne kenn mënu koo wax soo déggee ñu ne taalibe dina poñe sëriñam ëllëg lii moo tax alquran décret la goo xam ne duñ ko àtt ci benn décret alquran moy duñ ko att ci ben aya li daane nit ñi nak moy ben aya de nga aya gis nga aya bi de te ñom ay ñaari aya mo leen daane li yalla wax ne yomal qiyam dañuy wax ne ñun de suñ serigne ya ak suñ buur ya ñom ñoonu naxoon ak suñ sang ya suñ serigne ya ak suñ sang yi ñooñu naxoon yaa ngi de tay nak yalla ñu ngi ni suñ borom lamuy def moy dumale benen aya ba moy yomal qiyam ben bakkan mënul fa bakkan ba dara ñaari aaya yi la ñuy wax taxaw te fàtte ni yàlla dafa wax ay aaya seetal laaya bi ko suñ borom inde ñoom ñëpp ñoo d'accord ne sëriñ ngay àndal ba dugg aljanna sëriñ ngay àndal ba dugg sawar moo tax Cheikh Moussa Cissé wax na ko ci wolof xam ngeen li wax daf ne bés pénc fa la ñu jëm suma taalibe du ma poñe du ma poñe mukk ñu ne ko lu taax mu ne bokkaale yàlla laa fekkoon ngeen nekkee xamu leen woon yàlla ku xamut yàlla yaa ngi bokkaale yàlla ma jëlee leen ci bokkaale yàlla yóbbu leen ci tawhid te tawhid du yàqu mukk kum ne ci sëdd na aljana nga su fekkoon ne réew mi adduna bi xamoon nañ li Cheikh Moussa Cissé yéene jamono. déedéet ngir dimbali say waajur déedéet ngir dimbali say askan adduna bi yëpp loolu Cheikh Moussa loolu lañ ko ne àdduna bi yëpp nit ñi dañu may topp da jóge ko fu nekk dama topp mu ne waaye nag faw ñu topp ma ndax man borom njëriñ laa goo xam ne duma ma lor kenn lu tax du lor kenn soo ñëwee yàlla la lay jox Cheikh Moussa Cissé nag loolu mooy itteem lii mu jox ñu nag ñuy walbatiku samp ñii ñu jikki jege leen dafa mel ni nga abone jaay nit ñi télévision yu bari Euh, ay téléphone yu bari nga jaay leen ko jaay leen ay piis waaye amuñu antenne buy jokkale téléphone yi diggante ma ak piis bi loolu moo indi sëñ Tuubaa daan seexal di samp nit ñi ñu dem jege ji askan gi ndax askan gi fi ñu toll amuñ jot kenn ku nekk li nga moom xañ na la nga uuti ki la moom kenn ku nekk li nga moom xañ na la uuti ki la moom koo wax xam yàlla rek mu ne ah xam naa yàlla ni ñuy jullee ni ñuy wooree ni ñuy gën ba askan ñuy aji makka njuumte bii ci lislaam njuumte bu rëy la ci lislaam ku xam julli xam koor xam génn même askan xam aj makka xamoo yàlla digle yàlla nga xam na leer xam yàlla bi muy am yàlla bindu suuf bindu jant bindu weer bindu asamaan bi xam yàlla di am booba loolu amut te kooku wax mu ni d'accord na yàlla dafa sàkk ruu yëpp xamal leen boppam alastu bi rabbikum ndax ma seen borom ku ko waxu doon doo juddu ñun ñëpp a xamoon yàlla moo tax bi mu waaji ne xam yàlla da ngay jàng mën ko déedéet xam yàlla bi muy am suuf amul asamaan amul jant amul bindaguñ jëmu doomu aadama ruu gi lañ bind loolu moo tax loolu ajuwut ci njàng da ngay daje ku ko yor mu jox la ko mu ne bi ñëwee ci àdduna na kon nuñ koy xamee ma ne ko yàlla dafa def tafsirul quran fil quran firil yonent bi alquran ci alquran xam ngeen li ko wax bi mu ñëwee ci àdduna mu ne ko fàttaliku ma fàttaliku ma waaye yéen fàttaliku ma sëriñ si firi saayir bi bàyyi baatin bi fàttaliku leen waxtu julli yi leen waxtu koor yi déedéet loolu fàttaliku digle yàlla la yàlla du julli yàlla du koor santaane yàlla la yàlla du julli gi du koor gi lu tax yàlla ne fàttaliku ma nga ne mooy fàttaliku julli hors sujet nga def dañ laa question benn question nga tontu loo xam ne bokkut ak liñ la laaj yàlla moo ne nañ ko fàttaliku bokkut ak fàttali leen suma santaane yi waxu loolu de fàttaliku leen ma man yàlla soo xamut yàlla noppil moo tax sëñ Tuubaa dafa tere woon kuy firi alquran terewu ko woon mutlaqan danga war a lamboo ñaari xam-xam xam-xamu zahir ak xam-xamu baati xam-xamu zahir ak xam-xamu baati yow mi ko bëgg a wérante nag déglu ma yàlla wax na ci alquran huwa wal awal wa aqir wa zahir wa batin wa bi kulli sayin halimu yàlla wax na ci alquran maay ki njëkk maay ki mujj maay ki feeñ maay ki nëbb man nag suma xam-xam daj na kap huwa bi kulli sayin halimu xam-xamam daj na kap maanaam clôturé na mbir yëpp moom yàlla loolu la wax waa léegi nag nan la nit ki di def toog ci kaw suuf xam julleem ak kooram ak génn ba mi asakaam bu yàqoo mu xam ni mu ko war a defaree ne xam na yàlla déet xam na digle yàlla yi faratay digle yàlla yi xam na ko kii nag ci loolu lañ ko dimbale mu di ci dimbale nit ñi képp koo xam ne nag am nga télévision am nga ay kanaal xam nga li nga dese wuti décodeur mu décoller sa kanaal yi nga seetaan ko direct Cheikh Moussa Cissé nag yàlla daf koo def mu nekk décodeur boo xam ne dafay décoller kanaal yi nekk ci biir télévision yi nit koo gis télévision la mais mu ngi seetaan boppam mais xamut lu nekk ci moom nga bëgg a dem alquran mbir maa ngi ci yow wa fi anfusikum afala na seet leen ko ci seen bopp lii la yàlla wax ci alquran waaye yow bu yàlla wax ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun ma ne la euh, aaya bi nee na mbir mi nañ ko seet ci suñu bopp noo koy gisee sa bopp ndeysaan benn mbokk mu baax mu ne ma sang bi man xam nga lan moo a jaaxal ma ne ah mu ne ma heure bu may jàng téere suufi yu ba dégg tasawuf wala ma dégg maarifa mu ne man xaw ma loolu lan la wala ma dégg xaqiqa ma dégg ñuy woy Sëñ Tuubaa bu ne xaqiqa wala maarifatu billah mu ne man daal damay gëlëm damay toog ba yàgg rek ma ne ah loolu mag ñi ñoo ko xam jeex na ma ne ko loolu mooy njuumte da dangay jog nga geestu bañ a tayal seetal nit ni ko alal jaralee ay conteneur yi ngir lu moom hitte rek la def ngir lu am loola waaye dafa ñàkk boppam parce que topp dina moom mais ki ko moom nee na yalam ci biiram xamut ko te xam ngeen li yàlla wax soriwul la a nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid maa leen gën a jege seen buumi xel yi waaw li la gën a waxut jéggi na xel mi ne daf ne maala la ko gën a jege kooku lu mu nekk ci yow gis nga lii yàlla su génnee ci nit rek mu daanu lii yàlla su génnee ci bant bi mu daanu loolu lañ lay wax ne baatin su génnee ci bant bi mu daanu su génnee ci sa dàll yi mu yàqu su génnee ci sa mbub bi mu xotteeku su génnee ci sa téléphone bi nga sànni ko su génnee ci sa verre yi nga sànni ko baatin mooy doxal mbir yëpp mais yow nag amoo machine bu la woon mbir yi moo tax bi mu waaj ne yàlla nuñ koy gisee doomu aadama nu muy gisee yàlla maanaa ah, yàlla de daf ñu xamal boppam waaw léegi pol bu la jàngalee pol siggee doo lakk pol tubaab bu jàngalee tubaab français soo siggee doo wax français olof bu la jàngalee olof soo siggee nga wax olof bambara jàngal la bambara soo siggee nga wax bambara déglu leen nag suma misaal bi ma leen di jox pol jàngal la pol soo jigee xam lakk pol léegi nag yàlla moo ñu jàngal yàlla yàllaa ko wax de nee na dafa dajale ruu yëpp jàngal leen ne leen alastu bi alxuraan jàngal yàlla duñ dégg bu la jàngalee ay séeréer jàngal la séeréer ay olof jàngal la olof ngay dégg yàllaa ñu jàngal boppam alastu rabbikum nekkum seen borom léegi duñ xool nu muy demee sëñ Tuubaa ñu laaj ko ndax àgg ci yàlla yow rek la yem gis ngeen kii li mu ci seen biir xamagul lan la waaye ci kanam tuuti da ngeen koy rang dara du ko dindi sama se daf ñu daan wax te weet wetli ko li ma la jox wetli ko li la jox doo weet fu ci waay yendu wala mu fanaan fa borom xam-xam fa yendu borom xam-xam fa fanaan ku xam yàlla ku nekk borom xam-xam sëñ Tuubaa mu ne noppaleku leen ci xiili ak xaala loolu ay werante la masala boo gis masala ñëw na folliko masala boo gis masala ñëw na feetoo ko kaw julli gi julli gi def mu ne ah mu ne dafa dabate jotiwut waaye leeral na ko daf ne julli su fekkee ñeent la ñeent soo tukki dangay wàññi xoor su fekkee dangay tukki da ngay bàyyi koor ga bu dellu siyaat weer wa su jeexee nga fay du lool la léegi nag lan moo nekk ci islaam loo xam ne amul wàññi amul wàññi te ku ko deyaale du aljanna waaye waxal laa ilaha illallah baatu laa ilaha illallah rek la nit dee dugg aljanna gis nga boo tuubool dugg ci lislaam wax laa ilaha laa dugg ci lislaam julli jotut tusbaar jotut takkusaan jotut mos koor moom waxaguñ ko koor amagut aji amagut dara amagut yow ponk lislaam boo ci benn rek ñu ne diw dee na te yow xes nga wax laa ilaha illallah signé dañ lay jullee ko ci doon dara laa ilaha illallah la moo tax mu ne jaamu yàlla baatu laa ilaha illallah la déglu li yàlla wax yaa ayyuha allazina amanu faskurullaha zikran kasiran yéen ñi gëm yàlla tudd leen yàlla ak tudd lu bari Cheikh Moussa lu kurus gii ngeen gis bu leen ko jàppee nii yàlla moo ne nañ ko tudd lu bari Cheikh Moussa ne kon nag dañuy nos kurus jox la soo demee ba bëgg a fàtte nga gis ko ci sa loxo wala nga gis ko ci sa baat nga wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah benn woon waaye ñu mel nii Demba Gueye suma kal la ñu ne yàlla dafa foor yàlla dafa mag naa am ñeenti kurus juróomi kurus raj raj raj googu duma ma fàtte yàlla loolu moo indi gis ku yor ñett bu ñeentul dool doo nga tax pour fàtteku la yàlla yàlla ñun mosuñ dégg sax baat boobu mosuñ koo xam mais atam ngorom xel koor diw maa ngi toog ci maa ngi bokk ci yoon bi sëñ Saali Mbàkke ba mu santaanee ngorom xel koom ma booba euh, kii bu poroxaan sëñ Moustapha Basir ñii sëñ Bas bu sëñ Abdou Khadir def booba sëñ Moustapha Basir moo ko def sëñ Moustapha Basir yónnee Cheikh Moussa ay oto ñu dugg ci auto ya nak dem ci ngor ma bañ agge ci guddi gi la yalla ji taw ci suñ ko ñun ñepp amul bas amul dara dafa fanano taw ci suñ ko ba bor setee nak comme ñun ni ngeen ko gisee ni suñuy gor dañuy hadis de waxtaan de hadis de waxtaan de hadis de waxtaan de hadis de waxtaan señ tuba xam yalla la oot daf doon agal nit ñi ci yalla yalla xam ko la bëgg li lañuy nekk xam ko du julli xam ko du koor suñ liggéey ba pare loolu lañuy nit ñi nag comme xamuñ loolu miinuñ ko ñu ñëw dañu seetaan si léegi kuy ñëwati nag ñu gis na nga yor kurus ñu ne ah yow xam naa ñi ngay ut ñu ñuy wax yàlla yàlla ñi ñuy wax yàlla yàlla baat bi li ko indi laa leen di wax ñi ñuy wax yàlla yàlla bu yàgg nag ñu dagg ko ne yàlla yàlla yi mooy ki mujj mooy ki feeñ mooy ki nëbbu te ñaar rekk am feeñ ak nëbb lii yaram la lii ruuxu la te ñaar yooyu rekk am sëñ Tuubaa ne fa kullu man raa si wallaahi ahad fa ay say in fa huwa murtadin jiyaat képp ku xool gis leneen lu dul yàlla mu ne da ngaa murtad te yow sax noo xoolee gis leneen lu dul yàlla te soo tiimee mbir ba mu jaaxal la xam nga li ngay wax est-ce que yàlla seetal rek li yàlla def est-ce que yàlla seetal rek li yàlla def ah seetal su li tubaab gi def nga ne tubaab boobu duñ ko gis est-ce que yàlla seetal rek li yàlla def ay eh waay man mënatumaa talal suma tànk yi ñu ne lu tax mu ne yàllaa ñëw suma tànk mënatut a dem billaahi bi nga koy talal di dang dang it yàllaa ñëw dangaa yëgul rek xaarif il faut nga nekk arif billah il faut nga xam yàlla parce que loolu moo la indi ci kaw suuf da koo xam door a ñëw yàlla ne la nag léegi fàttaliku ma xam nga fi nit ñi réeree rek mooy baatu fàttaliku bi mais suñ comprendre loolu rek day gaaw pour que ne ko nekk ut ko yàlla moo léegi nag yow baatu fàttaliku moom nga xamul lan la te yàlla ne la fàttaliku ma léegi nag nooy def ba fàttaliku yàlla moo tax bi waa ji nit war sa topp nit ma ne ko yow da jiw yàlla nee na toppal ki topp yoonu yàlla toppal ki topp yoonu yàlla jërëjëf jërëjëf mu jëlaat milliard ñëw sukk ci rosu Muntaxa toog ci suuf ne ko suma doom bu góor gi soo ma ko laajoon dina ma la koy jox nga def ko tabaski ah dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Seydina dafa gañe xaybar xaybar laa wax de caabi ga safab gëlëm la loolu nag entre parenthèse laa fiy jaar tuuti mm-hmm. pour pour nit ñi ki leen moom na leen yi teel force ñu am liñ moom billaahi wallaahi tàlla ana màkka ana màkka amuñoon dara sonn am problème ca jamono yontu yàlla muhammad yontu daf doon xëy ba takk takk takk takk biiram fu mbir ma mujj réewu arab yi duñ moromi réewu tubaab yi ñoo leen ëppale alal foofu tubaab yi alal biir suuf comme ni seen dal Sénégal ñu indi seen machine yi ñoom amuñ amuñ pétrole waaye am nañ machine ñu ñëw gas ko fayee ko ci alal bu bari loolu la ci naar yi bu am alal bu du jeex tubaab yi amuñoon dara service bi ngeen gis nii du ci tubaab yi c'est de déggoo ko c'est yu rafet yi ñuy toog France lañ la xooloo Amérique naan benn kaas nii dañoo sa yow tubaab nga yonent moo waxoon ne bu leen jël kaas di def gulux gulux gulux gulux mu ne jël leen da ngeen jël kaas dinaa ndànk loolu yonent bee ko jàngale faw ma arrêté foofu sëñ Saliou jërëjëf jërëjëf ndokkel nañ la sant nañ la ti njaarama nañ la jërëjëf jërëjëf kon nag ñu delluwaat ci la nga xam ne moo ñu fi indi te bàyyi ñu fi te moo ñu fiy jële te billahi wallahi tallahi tak, kuñ tak tak la ci morso bu wex gogu morso jalunek, yi jël ko jël jël witen dugal ci jël lu nek dugal ci fep fo xamne bon bon la ci sa yeram tej la tak la dugal la ci bir pax mo xamne kenn mënu ko wax nit sul ci la fa yobbo baat bi nga xamne mom la jëmu ji o ci seen bir karo nga am problème. billahi wallahi baat bii moo lay séedeel sa lislaam te lislaam la la li yàlla di laaj ëllëg ma ne waa ji luy lislaam mu ne ma julli ma ne ko déet xanaa déggoo arab lan mooy lislaam laa lay laaj lislaam mooy jébbalu ci yàlla aslam taslam sëñ Tubaa ko tekki mooy jébbalu ci yàlla waaye nooy dégg jébbaloo ci yàlla waaye ma noo man agsi naa ci sëriñ bi jeex na ma ne ko deet agsi naa ci maître bi jeex na mooy waxu lan maître bi dafa lay jàngal dafa am lu la tax a jóg daf lay jàngal. Serigne Touba nee na Serigne Serigne Siraajan mu niiral la tudd lamp la bu niital sa diggante sa borom ay eh, man laaj sëñ bi lu tax doo ko laaj. Cheikh Ibra Fall mi sos yoon yi bu ñëpp xam ko bi mu agsi Serigne Touba dafa sukk rukk dafa dajeeg sëñ Adama Gueye mu gisee sëñ Adama Gueye rek la xam ne man li ma doon ut mu ngi may xeeñ kii waaye liy dal sëriñ si rek euh, diw dafay dem ci yàlla yee mu ne ñooñu baaxuñ bul dem ñooñu duñ dara te yow xamoo ne yàlla yàlla ñun euh, ci ci ci sëñ Saaliw lañ ko amee ci liggéeyu sëñ Saaliw lañ ko amee bul dem ñooñu baaxuñ ñooñu duñ dara la ñuy wax du dara gisuñ suñ borom gis naa koo xam ne sax fan yi ay ay statut ay statut ay décès la génne ne yàlla yàlla yi lii la wax nit ñi lii lañuy wax nit ñi waaye yéen kees sukar est-ce que binduñ ci kaw sukar gorosu almet ndax binduñ ci am almet taalekaay fi ñuy jaayee sàngara ndax binduñ ci koom fi ñuy jaayee sàngara fi ñuy jaayee oto yi ndax binduñ ci koom loolu lenn lu ne bind nañ ko ci koom ba mu daj du dëkk jëmm joo gis ñu ngi ko bindee Muhammad jëmm joo gis ko bindee Muhammad te Muhammad allahu la omb ana allahu bi ma ne buñ caaxaan jëmm joo gis maqaama rabbula ak hab ñoo ànd ci jëmu ji di dem maqaama rabb su génnee rek jëmu ji daanu yàlla gis ko yomb na jege na kenn ku ne yaa ngi koy gis li ngay gis nga xamut su ma gisee yàlla dee ma ne ko lu tax mu ne yonent yàlla Moussa dafa waxoon ne gis naa dafa waxoon ne dama laa bëgg a gis yàlla na ko doom a gis ci sortal sama bëggee gis xolal xolal xolal xolal xolal ci doji bu saxé place am doo gis sangi bi xana jango fa la maa tëjala rabbu dakan manako ankay bam xolé ci doji doji dafa toj tasarew manako do indi beneen aya loolu nag mo mo moo ne ci jakka ji yonti yalla musa nangam nangam teew indi wo benen aya manako yow do indi benen aya mune ma ban aya lay indi manako alquran duñ ko atté benn aya fek mënoo boole ñaari aya yu wax ci benn mbir soko firé du wir parce que beneen mën naa ñëw dàq ko ma ne ko yonti yàlla Moussa moom nga wax gis na yàlla de li kii wax leen mu ne ah ma ne ko gis na yàlla de mu ne ma lu tax ma ne ko yonti yàlla Moussa dafa jóge ko ci yonenti yàlla soxin bu du da ngaa bëgg na alxuraan nga bëgg a dégg jeex na dafa jógee ci yonti yàlla soxin bu da ñëw ànd ak jabaram ak ay doomam ak alalam yàlla jox leen benn sedd bu sedd guy ci lëndëm xam nga ci Moussa la ko dàqee déglu ma nag ci Moussa la ko gisee waa ji ne tekk dama déglu ma ne léegi nag yont yàlla Moussa daa dem bu yàgg dafa ne eh, yéen samay nit seen naa safara xaar leen ma fii ma dem ci safara bale benn ma indi lu dindi suñ sedd bi wala ma indi fa bu leer laaya bi ma bëgg jëfandikoo rek bi yonent yàlla Moussa jubee xur yàlla ne ko Moussa sumil sa dàll yi xur bi nga jub si xur bu sell la laaya bi ma bëgg a jëfandikoo rek yaa Moussa inna ni an allah yaa Moussa mu Moussa oyu ne ko man mii maay sa borom yéen su ma jógoon taxaw nii ne leen maay sang ñaan bu seet naa alin maay sang ñaan bu seet naa alin ma xam man benn nit bu tuuti la yàlla ne Moussa man mii maay sa borom inna ni an allah ma ne ko soo gisee beneen aaya na bu dindi lii ñëwal mu ne teg dematut Moussa gis na yàlla jaxëran da ngaa firee benn aaya looloo la daane nit dañ ko tëjee ci benn décret dañ la wax décret sàngam daan na la décret sàngam daan na la décret sàngam ci numéro sàngam daan na la loolu mooy aaya loolu mooy aaya parce que nit ñi il faut ñu waxtaan ci ñoom ci seen xel yi que yàlla daf ne moo moom hikma hikma nag dina ko jox ku ko soob te ku ko jox jox na la yiw bu rëy mu ne duma ko jox lu dul borom xel yi borom xel yi rek laa koy jox gis nga lii kuy tañax tañaxi moomoo ko parce que seetal rek adduna bi ñoom ñëpp ñoo nangu ne kuy julli de woor de génn mbay mi asaka di aj maka xam nga yàlla erreur bi waaw lan mooy digle yàlla kon yàlla ne la xam ma nga xam julle koor ne xam nga yàlla digle yàlla nga xam bu yakko ni ko wara defare nit day am xel yàlla daf na ñu xam ko mom la wax mom ñu xam ko mom yàlla mom yàlla mom dafa bëgg ñu xam ko mom parce que daf ñu bind bind bo xam ne kenn duggu ci ki nak soxlam item bëgg-bëggam lool lay décoller pour nit ñi xam ko mën a mucc nit ñi xam ko mën a raw loolu mooy soxlaam loolu mooy bëgg-bëggam comme ne ci nga mucc comme ne ci yow nga raw comme ne ci nga texe comme ne ci yow nga gañe ku ko bàyyi nag tardé loo nga sa bopp tardé loo nga sa bopp kat Cheikh Rafal bi mu ñëwee ci Sëñ ko wax Mbàkke li ma tax a jóg àgg ci yàlla moo ma tax a jóg àgg ci yàlla moo ma tax a jóg Moussa Ka nee xam yàlla xam fam teg yonent ba war na bépp jaam ku leen xamut yàlla bu xam koo ko yàlla waaw seriñ tubaa de maanaam dex ku dem duy ku soobu ne mes soo gënee xam boromam waa ji ne ma man de xamoo fi ngay soobu ba ne mes man de wax dëgg loolu xamaguma ko ma ne ko waaw loolu waxu góor yàlla yi la waxu aqiqa la il faut nga jaar yoonu góor yàlla nga tërbiya ci laa ilaha illallah nag amul leneen de koo gis mu ngi weet de wir da loo xam ne moo koy may alal wir da loo xam ne leneen déedéet tawhid laa ilaha illallah waa ji ne murit mu wér la ma ne ndaw njuumte sëñ Tuubaa bi di téere ubbi ca buntu Masaalikul Jinaan tuddee ko baabu wirdi te wirdi boo mën a jàpp ba askanu Cheikh Ahmed Tidiane ba askanu Cheikh Abdou Khadre Jilani Cheikh Ahmed li mu wax mu ne seen ittee wirdi moo yóbbu la ci yàlla seriñ ku ko warta am amut ku nekk war nga am sëriñ waaye na la yóbbu ci yàlla na na nga topp sëriñ boo xam yàlla ku ne war ngaa liggéeyal sëriñ waaye ban sëriñ nga war a liggéeyal sëriñ dina la yóbbu ci yàlla naa ci yàlla mag ñi lii moo taxoon ñu liggéeyal sëriñ pour mu jaral leen seen bakkan ko sëñ bi yaa ñu dimbali yaa ñu dimbali de waaye waa ji dañ koy ñaanal mu am alal mu ne yaa ñu dimbali loolu demal Casamance soose bi defal la ko coupe lan coupe coupe seet seet séeréer bi jël coupe seet ca Maroc kooku ñu ngi koy fekk muy defar affaire mbir yi ñaan baax na nga am dara baax na waaye nga fexe nag bu àgg ci sa borom mi la moom moo ëpp doole kii nag loolu la oote kii lool la oote de kii loolu la oote de ku ko am mucc lii rek mooy mbir mi lii rek mooy mbir mi nag maa ngi leen di baalu àq moom moo waroon jël sax ubbi sargal nga ay ganam waaye bi oustaz de pare dafa am fu ma fekk rek loolu tax ma ne ko jox ma micro bi te moom it du wéranteeg man dara waaye yàlla yàlla gërëm la yàlla yàlla fay la mbooloo mi yàlla yàlla barkel leen adduna bi yëpp yàlla yàlla oyu leen saayiran wa baatin kon nag baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf delloo leen ko